man tey jii dañoo ñëw fii si pôle urbain de Diamniadio jëmmal gisin bi nga xam ne président de la république gis na ko ci ñu fexe ba ñu fexe suñu dëkk yi dëkk ay dëkk yu set ñu setal suñu dëkk yi loolu moo tax tey ñu organiser journée setal suñu réew parce que ne nettoyer une grande partie du pôle urbain de Diamniadio ñu def ko en relation ak le préfet du département de Rufisque mi nekk fii taxaw ak ñun ak le sous-préfet de de l' arrondissement ak l' ensemble ne ñoo ñu wër la maire le maire de Diamniadio le maire de Rufisque Nord le maire de Rufisque Ouest le maire de Sangalkam ñi nga xamante ne ñu ngi fi ak l' ñi nga xamante ne mooy partenaires yi nga xamante ne ñooy privé yi développé dans le pôle ñoom ñoo indi seen moyen indi seen équipe ñun aussi DGP ñu indi suñuy moyen tey pôle bi en mais suñu gisin dafa romb rek nettoyage dañoo jàpp ne lii président woote dañ cee war a am plan boo xamante ne dañ ko war a dëral plan boobu ñu tëral ko mu jëm ci ci fii ak fin d'année bi bi ci jëytu tey mooy activité de nettoyage am na activité boo xam ne dañuy jëmbataat ay garab si biir pôle bi mu ngi waaj a ñëw loolu aussi ñu gis ne lii président woote woote boobu da si woo Sénégalais yëpp ñun en tant que DGPU ñu gis ne dañ soo war a ñëw jàpp ci jàppal jëmmal euh, vision président de la République beneen bi nga xamante ne gis nañ ko mooy ne pôle bi gis nañ ne articulation bi morom ak communes yi wër xaw na des donc ci loolu la ñu commencé waxtaan ak maire yi pour ne cadre boo xamante ne dañ si mën di waxtaanee problème yi nga xamante ne war naa am si pôle bi mu defee ñu fexe ba investissement yi ñu def si pôle bi une partie mu mën a dem ci commune yi développement bi nekk un développement boo xam ne nekk développement intégral moo am li ñuy tuddee continuité territoriale bi nga xam moom la ñu am mu nekk continuité dans les dans les li ci des mooy woo nit ñi woo sénégalais yi ñu jëmmal set jëmmal setal mu nekk euh, comme comme nuñ ko defee suñu dundin comme ni président de la république Bassirou Diomaye Faye woo ñu ci jàpp naa ne woowute boote boobu Sénégal yi dégg nañ ko déglu nañ ko te ñu koy jëmmal